waxtaan wi parce que li waxtaan wi moo dàq fopp. li li li li li alaaji kenn dafa xamul li amul bopp amul genn dara dara. man rek parce que. yow dem ba ca bërëb bu tedd ba. amuñu teraanga. ñii xamuñu euh, teraanga su dañu ko tegal ñu sama yaay ji loolu wax jarul li ci jaaraat jarul ñu ci jaaraat. ñëwal ñëwal ah. ñu ci jaaraat sax. yow borom ñaari tur yi li nga ci xam. waaw borom ñaari tur yi démb. ay vers euh, seize heures dix ci laa jékki-jékki tëdd sama ne xam nga dem si àjjuma bi Touba kenn du xëy ñu jékki-jékki dégg bruit bi gars yi di yooxu bi ma génnee laa gis ñu koy sonal fii waaye bi ma ñëwee da ngay xool ci yére bi mu sol kilote euh, bi mu sol daf ko def marqué góor jigéen waxuma la non seulement marqué mais drapeau même mbubbam euh, kii bi dafa am marque léegi ci lañ ko booy sonal ci sonal ko sonal ko. ci la dañ ko doon dóor moom. Mm-hmm. fii dañ ko doon dóor mm-hmm. booy mm-hmm. biñ ko dóoree mu daw gaay di ko làq ñii di ko dugal ci tata bi ba gaay yi commencé di yàq tataay ci la daw dugg ci benn kër tëju. après ci lañu woo police police ñëw jël ko. Ah. moom bi gaay yi ñëw foofu lu lu leen wax ak ñoom lan la leen tontu. Ah, moom. Euh, da ci kii booy ni ñu waxee dañ ne moom dafa luye fii ci koñ bi. dañ koy gis tout le temps boo ko gisoon nag moom kenn buñ ne la góor jigéen la amul loo ci sikk saak. ndax sest yi dafa léttu mm. dafa xeesal. Mm. buy wax ni Ndella di wax doo xàmmee moom ak Ndella Madior mhm. waaw parce que jigéen la moom mhm. waaw mhm. léegi bi ñëwal foofu acca waaw bi ngeen ñëwee moom lu ngeen ko wax yen ak boy lan lañ ko wax waaw man dama gis nii rek comme maa ngi dégg nag ñu naan ma moom euh, Safinatou Amane ci ay un an wala deux ans ci gannaaw euh, waa Safinatu Amaan jàppoon nañ ko fi waaw nee nañ ma moo dëkkoon fii ci quartier Maam Jaara dafa dafa jugee ñëw yoon daaru wax nañ sax aussi te ci information yi jot mooy côté Kër Baye Laat yooyu waaw je pense que dëkk na foofu waaw waaw loolu dégg naa moom dafa luyoon fii daf fi luye daf fi luye mi ngi luye woon fii ci kër sang bi ci gannaaw kër sang bi kër Signal Line mhm. foofu la luye loo ñu mën a wax ci moom loo xam yéen wax na leen ko ndax moom nangu na ko man moom jigéew ma ko woon dégg nga ko dëgg-dëgg jege jege jege jege danaa koy gis daal bi ko booy kii sama yaram doon na daw en même temps dafa ñaaw làmmiñ mhm. dafa ñaaw waaw saagaam kay moom beneen affaire mais du moom <laughs> déet moom kay <laughs> mun munu wax lenn lenn leen ay système daal mhm. jigéen na ba mu ëpp mhm. waaw léegi bi bi ko gars yi commencé door léegi yow noo def waaw ci lañu woo police waaw ba pare di diw di xeesal di let ñoom noonu lañ def ba gis booy déggoo mooy comme li ma la waxoon ci début rek. Mhm. dama tëdd di nelaw sax yàgg na ci koñ bi quoi. waaw xam nga man gis naa ko. Mhm. gis naa ko di waaw gis naa ko vendredi bële. Mhm. man ak ku ñuy wax Abdou Khader. biñ ko gisee maa ngi tase moom ma ne Abdou Khader waaye jigéen gi fekk dañ ko gis mu yor benn bale. ma ne Abdou xool jigéen gi kii am na wu fit de. ñëw ba Touba ngay sol Touba may wax nga mu ne ma kee du jigéen bu doon jigéen sa sañul sol tubéy kee góor la ci laa déggaat ci gannaaw gi ma dégg Max Ndiaye ne ma man ki ma gis tey yéem na ma waaw fekk daf ko doon upp di ko jël taxi Euh, bi bi ñu ciy waxtaan rek walaay naa si barki démb si guddi ñu ngi toog di ci waxtaan. bi ma xëyee laa dégg booy yi xaw ma xam nga affaire bi dafa dafa jugee fu sori. Mhm. ñu koy topp ba mu ñëw ci sama koñ. Mhm. waaye comme du du du fi euh, suusu. Mhm. ma nga doon côté mbaaru Sëñ Fall. loolaa tax fa lañ ko jàppee mais fa lañ ko yuuxoo mu ñëw fi ñu jàppee ko fi. waaw waaw yow bi nga ko jour bi nga ko gisee woon lim sol nu mu meloon. mooy xam nga du ma ne la Touba ndax Touba jigéen ñi duñ sol tubay mhm. mais Thiès ak Ndakaaru ni ñuy solo solee yére mhm. moom moo leen gën a sexe la mhm. waaw ndax euh, yëreem dafay dafay dafay sexe ba mu ëpp waaw dafay sexe ba mu ëpp daal mooy wane ne moom góor jigéen voilà voilà dafay sexe ba mu ëpp waaye bu waxee tamit ndeelo ma maajoor bi ngay dégg moo gën a dëgër euh, waa ji kàddu léegi léegi léegi ah, anam ci information yi ma jot sax maa ngi dégg ñu ne moom dem na ba nga xam ne euh, amul ci amul ci benn euh, kii nee na moom carrément moom la waaw moom dégg naa ci benn information yi ma jot mhm. dem na ba ne moom carrément góor jigéen la oh, waaw moom wax na yàgg na nekk fii quoi waaw waaw moom Touba moom de nee nañ ma sax fi la dëkk mhm. waaw fi la juddoo waaw xaw ma nag juddoo mais dëkk gi moom ndax am naa ñoo xam ne bi bi bi ma bi coow li dalee nee nañ ma ñoom xam nañ ko mm. xam nga man Safinatoul Amane ci bañ koy wane boobu seetaanu ma vidéo yi bu baax mm. même bu ma ko seetaanee fàtte naa image yi mm. waaye ñi ko teewlu dëgg-dëgg dañuy jàpp tur bi xam ko waaw ba xam ndayam sax waaw dañ ko gaañ wala gaañ war nañ ko mën a gaañ ndax la ko toppoon ci mbooloo dafa bëri mhm. plus di ay deux cent trois cent personne topp nañ ko mhm. te ku ci ne boo ko jekkoon da koy ray mhm. yàllaa ko musal waaye daf doon dee fii démb kër ñam waaw fii ci kër ñam daa dugg ci kër waaw waaw xam nga daw na dugg ci kër kër ña kër gum dugg sax en général da nga koy génn ba ci kër gu mujjam waaw fa lañ ko téye fa lañ ko non moom moo daw duggal ci boppam ni croisé boppam bi ko boy di daaj fo fu nañu bëgg ko faa jaar ci la police yi gaaw euh, ñëw di xeetali ko mhm. Mhm. léegi dañ gis ne euh, Touba liñ fi wax ay affaire borom ñaari tur yi dafa bëri trop trop waaw loolu moom waaw waaw même ñun ñi sax ñun suñ koñ bi sax da cee raw mhm. ndax man maa ngi ko fiy dégg même boo ko gisul di nga gis ñoo xam ne yàqute bi dafay bëgg ëpp fii ci yoon daaru Touba sax laay wax waaye yoon daaru daf see raw euh, da gis ñoo xam ne dañ càmbi ko di xeesal rek. Mhm. am na fu ñu ko war a classé. Mhm. daf bëri torop torop torop dama xamul lu waral war nañ ko xoolaat. Mhm. surtout jeunes yi quoi jeunes waaw daf fi bëri torop torop torop torop te man li ma ci gën a yéem daf naa ci benn jàngar waaye képp koo gis ñu ne la moom la. Euh, boo xoolee dëgg-dëgg métier am téer la. waaw loolu moom maa ngi ko ciy jàngat bu baax a baax. moom daf leen moom lan lay def. Euh, non man nag moom maa ngi dégg ñu naan ma téer la waaye wax dëgg fa yàlla xamaluma ko dara dara dara dara. Hmm. waaw xamaluma ko dara ndax moom ci kàddoom daal laa dégg ñu ne moom dafa wax ne daf doon cuublu fii benn yëre. Hmm. kum dendeel place yaayam la doon cuubloo benn yëre. Hmm. waaw. loo ci loo man ñu ko wax. comme man kay li ma wax nii moom laa ci xam. léegi li ci des ñaan la ñuy def rek. ñu dimbali ñu ci ndax euh, ko ko xam góor jigéen ak fam toll fa yàlla. nga xam ne. réew moom njëkk a wàcc dañu alag waa réew ma mhm. buñ ñëwee ba di ko dégg ci dëkkub Serigne Touba mhm. war nañ ci teel a def artu mhm. waaw ñu ci war a liggéey ñëpp ñoo ngi leen ciy woo ñu ñu dimbali ñu ci ndax dañu tiit ñun dañu tiit waaw loola ndax euh, sama xale yu tuuti yi xamuñu woon dara waaye démb damay dégg ñuy wax baatu bu góor jigéen ndax loolu rek dafa def acte bu fekkoon benn kuréel la am na mën naa ne am nañ benn jéego waaw dem ba xale bu tuuti bi commencé di di di comprendre góor jigéen mm-hmm. loolu acte la ci ci ci ci ci ci seen réussite la bokk mm-hmm. waruñ leen ko may nag war nañ ci taxaw liggéey ci bu baax a baax a baax état bi kilifa diine yi ndax Euh, même buñ ne état état état dëgg la waaye dëkk bi day dëkk boo xam ne dëkk bu symbolisé hmm. day dëkk boo xam ne li ci nekk lépp lépp dafa bëri dëkk buñ naan ndonu la hmm. kon bu état dafee tamit ñi donn Serigne Touba nga xam ne ñooy dundee teraangaam ji hmm. war nañ ci taxaw tamit aussi lëggee ci seen waar bu baax a baax a baax waaw ñoo ngi ci woo Safinatu Amaan di ci woo police xeebuñ ci kenn ku ñu ci mën a dimbali ñu jël te xam daal si ne ni moom dafa mel ni seen i daal waaw mi ngi bëgg ëpp mi ngi bëgg a ëpp moom franchement parler mi ngi bëgg a ëpp xam nga nit ki hmm. doo ko topp ci lu ko neex hmm. waaw démocratique démocratique baax na dëgg la waaye dafa am fu mu yem hmm. doomu aadama daa am lu ko tënk gannaaw bi nga taxawee gëm gëm na yow taalibe bi yónnante bi nga war nga jombale sa bopp lu bëree bëri ses yi doon def loo ci mën a ñëwaat ses yi kay nag moom grand moom moom moom ku ci sukkandiku moom da nga koy rey ñii jigéen fii fii moo leen gën a jigéene su waxee loxo yi da koy damm ongal ko kàddoom day biiñ day day day day day day wallaay naa sim dencut daray góor waaw ci ni ñu ko gisee dencut dara dara daray góor moom waaw wax na turam waaw wax na turam waaye man maa amut ak jàpp mais moom wax na turam ñoom sax avant loolu am na ñu ko fi xam waaye man aw moom jàpp ci côté boobu moom yàgg na fi wala yàgg na fi yàgg na fi comme bi mu fi loosee léegi Euh, normalement war na mat waaw waaw waaw rek war na mat un mois deux mois maa ngi koy gis maa ngi koy gis ñi ko xamoon nag moom xam nañ ko lu lu jiitu trois ans ci gannaaw mhm. waaw waaye man moom bi ma ko dalee gis un mois deux mois laa ko laa commencé di gis yow bi ko gisee loo yëg tiit déggoo ku góor yàlla guy dox di di di liggéey ànd ak sa moroomum góor ngeen di waaxu di dox ba mu nga jékki-jékki gis lu la jaaxal nga ne tekk taxaw di geesu ngeen ciy deebaa góor la wala jigéen mhm. loola kay wax dëgg da ngay dem xam nga li tax ñu teel leen wala war a war a war a war a uh, kii jëlee fii mhm. gis nga boo leen gisee benn yoon mhm. boo leen gisaatee doo tiit mhm. lu bon nun la mel waaw fi mu toll nii njaaloo ki ci ki ci ki koy réel réel réel bu da koo defagul bu ko defee saytaane mën na ko mooy góor jigeen boo koy dégg di tiit ci kàddu gi boo ko gisee dootul réyati ci yow yooyu nag dañ ko war a teel a taxaw effacé ko fii surtout war nañ ko effacé ci àdduna bépp waye senegal da ci raw dëkku Serigne Touba bi da ci raw. caractère kanam gi tay boo ko doon jangatal muy bobbe ak nim def karaw yooyu. Euh, kanamam gi beudi da dafa gal mu newi newi xawma lu muy jël waaye dafa newi boko ko tamit da nga xamne ne day tux waaw waaye dafa diw ba diwum upp ba nga xamne fi jigen ñi toll seen pot di mom passé na fofu wa passé na ko mm-hmm. mm-hmm. da ngay gis kanam gi fi day def tump tamp yu ñuul wa ni jigen di àgg ci xeesal ba yàqu àgg na fa. mbir moom noo gis mu ñaaw moom. Euh, ruus man mën naa ne donte am naa lu ma naqari waaye ruus naa. Mhm. ndax échec la. Mhm. waaw buñ demee ba kuréel yi ku ne di taxaw ñuy mbubboo alayhi salaatu wasalaam. Mhm. ñu ñu mën a may góor jigéen ñi ñuy am acte. di jàll ci réew yi di jàll ci réew ba dugg senegal ñuy jall di jall ba ñew Touba mom mom dama rus wa wax deug rusel rek la ci am amul kenn kuñ fa gañ wa man mi di wax ak yow de xam nga dama taxaw ndax euh, man donte julit la waye nit ki même bo sàccoon buñ lay door ba xéru mujj wi la wara ray duma la koy sanni mo mhm. taxoon mako don protest ci bir protest gi mako don protest mom tañ nañ sama bop mhm,